yéenekaay bu ci woow it boo moytuwul ba nga dendal dana la tooyal ndax waxi ndox mu bari mu journal yi xëye xët mu njëkk Soleil national mi ngi ñu xamal ne tey ji ci altine ji ca ndox mu i jafe-jafeem ci am ndox gi war ngirug yokkute l'observateur nee nañu ci kaw thème bii ci la ñuy amalee neuvième forum mondial de l'eau gi yéenekaay bi dégg nañu dem bit ci télévision nationale Serigne Mbaye Thiam ministre eau ak assainissement muy xam ne ne lu jógee juróomi juróomi junniy participant ak juróomi téeméer bindu nañu ngir teew ci forum bi te ci ñoom ñaari téeméer yi ci réewum Sénégal gi la ñu dëkk l'observateur nañu ñoo ngi séntu ci xew it ay njiit réew ñi ci mel ni njiit réewum Mauritanie njiit réew bu Congo njiit réewum Guinée Bissau ak njiit réewum Éthiopie Sénégal Vox Populi nee nañu fii ba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars mooy doon capitalu àdduna bi ci wàllum ndox ñi tumuranke am ndox dëgg ci réew mi le quotidien nee nañu ñoo di waa kaw ga ne am na lu ëpp juróom-ñetti millions yi doomi aadama ci dëkki kaw yi ñoo xam ne ndox mu baax te doy dégg rek la ñu ci am direct news nañu ndox mi ak jafe-jafeem ci réew mi yamu rek ci dëkk dëkki kaw yi ne kër gi yore wàllum ndox mi di seen eau mooy problème national bi direct news nañu ñëpp doon xaar ci seen eau moo di bu ñëwee tàggale ndox waaye dafa far ñëw yokk joote ji ñàkkum ndox mi ñuy dund ci réew mi facture ndox yu seer seen eau di joxe ak perturbation yu rëy yam ci yi askan wi ñoo ngi koy jooy guddeeg bëccëg député yi ci ñuy wax ba yegg ci wàllum ndox ci ŋàññi seen eau ci la ñu dëkk màggalub daaru muxti gi woon bërki démboo njaay yéenekaay bi nee nañu ñàkkum ndox gu rëy la ñu fa dund ginnaaw ndox mi nañu wax ci courant bi ki jiite kër gi yore courant bi ci réew mi bi di Pape Mademba Bitèye directeur général bu Senelec moo nekk ci mu njëkk l'Observateur li sabab waxtaan yu moo di bëgg a xam ndax xeex bi Russie nekk ak Ukraine mën naa juri conséquence ci courant bi réew mi am déet Pape Mademba Bitèye directeur général bu Senelec mi ngi dalal xel ci wàllu woowee nee na waa jël nañu ay matuwaay yu woo kong di ay mesures conservatoires yu ñu jaare ci ak vigilance ci stock yi Senelec yi boole ceekit di jëfandikoo international rafetlu nañu ni muy doxee ci réew mi waaye nag ñoo ngi dànkaafu kilifa yi mi ci anam yu bari mutuelle de santé des agents de l'État libération nee nañu ak noos ak gundaandaat ak ndaataatal lax gu rëy moo fa am ubbil yéenekaay bi ci diggante 2018 ba 2020 journal bi nee nañu génne nañu fa 780 millions 261 mille 413 yoo xam ne kenn xamul fan la ñu ko yoo xam ne ci diirub ñeenti at lëm marché bu nañu ko ci ay fenn benn ordre de mission li gën a dee nag li benee nañu mooy 33 millions 160 mille yu ñu fay ci ay facture proforma jàppante bi soldat yi Sénégal yi nekkee ca Casamance ak fippi MFDC yi tongal leen sonal leen fukki fan yàlla boobaak léegi réew mi quotidien nee nañu biraa ba ci tukkee maanaam la mu juróogum tiis na tatar lise ko ne ko rawatina ci askan wi tàmbali nañu ko yëg bu baax a baax ne lu mu gàtt gàtt ñoo ngi wax juróom benn junni doomi aadama yu dawee Casamance làqu ji Gambie la xew ca Casamance moo de ci journal La Tribune nee nañu fipp yi ñoo ngi ci guuta jamono ji ndax soldaar yi dañu leen a wër ndomba ki yoon wër ndomba ba koy bëgg a ndengeeñ l'observateur mi ngi ñuy xamal ne moo di booy jinne ne lu jëm na yeneen juróom-ñaari mbir mu di li ñu tuddee ci wàllu yoon vol aggravé yu ñëw gàlle ci ndoddam ba tax na procureur de la république bi di sàkku ñu yóbbu ko ca chambre criminelle bu Ndakaaru Ndakaaru ak li ko wër la Sénégal mi ngi ñuy xamal ne dund nañu fi week bu macabre bokk benn borom benn étudiant bu pandar boppam ca Pikine étudiant boobee pandar boppam ca Pikine les éco indi nañu ci ay leeral yu gën a yaatu mi ngi ñuy wax ne ca Pikine ICOTAF fa la xewe ki def loolu ab étudiant la bu nekk ci université virtuelle du Sénégal bi mu pandaree boppam xaru la ko tax a xaru bàyyam bi ko jur la ko jéeñ moom étudiant bi toll ci ñaar fukket ak juróom les éco ne nañu laata muy xaru dafa publier ci statut WhatsApp am ne sama dund gi yépp li ma ciy réccu mooy li ma juddu